Serigne Cheikh Anta Mbacke bu Daaru Salaam mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Modou Rokhaya Mbacke le 19 août 2019 bi ñu génn dem na ci Serigne Mountakha Mbacke Bachir jébbal ko addiye ju toll ci 33 millions de francs fa di addiye joo xamante ni dafa jëm ci liggéeyub université bu Touba bi loole nag Serigne bi ànd koog mboolem njabootug Serigne Modou Rokhaya gi ñëw tàbbi ci li nga xamante ni. moom la Serigne Mountakha Mbacké Bachir bëgg a taxawal Cheikhul Khadim muy université bu kawe boobule. addiye ji nga xam ne nag fanweeri million la ak ñett Serigne Cheikh Anta Mbacké boole na ci fas wi nga xam ne fasu taaru lool la lépp mu jébbal ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir. ci fàttali rek mat na juróom ñaari weer ci ginnaaw. moom Serigne Cheikh Anta ñëwoon na ànd ak mboolem jabatug waa Daaru Salaam gi ñu jébbal Serigne Mountakha Mbacké Bachir lu toll ci 172 millions de francs CFA di addee ji nga xam ne at mu jot daañu ko jébbal ki nga xam ne moo fii Serigne Touba.